رضينا بالله رب العالمين صلى الله عليه وسلم نبينا الحمد لله الحمد لله الذي أكرم البشرية بمكارم الأخلاق وفضل بها الأمة الإسلامية على سائر الأمم بالإطلاق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 صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع آثارهم إلى يوم الدين عباد الله وقد روى الإمام البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أو مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت mbokk yi dañuy sant suñu borom yàlla jalaalu ci ay xiwalam yu rëy bokk na ca mu def ñu ay nit walakad karam naa bani aadam bokk na ca xiiwal ya mu def ñu ay jullit kuntum xayra ummatin uxrijat ngi koy sant ci mboolem ay xiiwalam ci ñu yëg ak ci li ñu yëgu ci li njëkk ak ci li mucc di seede ci taxawaay bi ne moom rek moo yeyoo ñu topp ko لا ya'lamu man xalaq wa huwa latiful xabir moom mooy ki xam li mu bind te la mu bind nag def koo bëggu te yërëm ko te it def koo teral kon lépp lu mu ko wax rek ak fépp fu mu ko jubal rek foofu mooy yiwam foofu mooy mbaax di seede it ni ku mu yónni mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikkoom la njëkk a waxee ko balaa muy waxee ci làmmeñ jottalee làmmeñ sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci yàlla mu wàcce ci moom yiw wàcce ci moom teraanga di koy ñaan nag boole ñu ci njabootam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dañuy delluwaat ci daarab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam xëytul ñu ko ba topp ko saxal ko yaxal ko ne lu wér la jëlee ko ci abi mason da al badri radiallahu anhu bokkoon ci saxaabaam yonente bi mu ne jëlee naa ko ci làmmiñ yonente bi sallallahu alayhi wa ci ay kàddam yu rafet mu ne inna mimma adraka naasa bokk na ci li nga xamante ne dabaat na nit ñi ba réeru min kalaami nubuwati ula ci waxu yonente yi mu ne ida lam tastaxi fasna ma moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa juddoo Makka kan mooy maamam Seydina Ismail kon ci Qurayshin la kuy maamam Seydina Ibrahim kuy maamam Seydina Nuux kuy maamam Seydina Adam ay yonente la milieu bi mu nekk mooy Makka li ko wër yépp yàqute la te li nga xamante ne moom moo ëmb saaku li nekk saaku yi yàquteef moom mooy ñàkk kersa moom yonent bi ci millier bi mu yaru gis yàquteef bi fi ne waaye ci biir yaru mag ñi mu fekk dafa dégg ñoo xamante ne bu ñu yar seen njaboot dañ leen di wax naan mag ni lee nañu ida tax tastahyi boo demee ba dara busatu la fas na ma shita lu ne mën nga koo def kon mag ñi dañ ko doon yare seen jaboot pour xiirtal leen ci melokaan kersa kersa mu doon melokaan bu baax yonente bi nee na kullu ko xayr nee na saako yiw moom mooy kersa ana bu dee yiw am na saaku bu koy denc téye nga man ko faa stocké saay soo ñëwee fekk foofu yiw boo dajee moom tibb ca muy yiw boo ko seenee ñu ne la lee comme ni ñu waxee lee saaku dugub la ñu ne lee yiw la saaku ba moom mooy kersa aka baax melokaanu kersa ba borom bi tabaraka wa taala ci làmmiñ yonente mu ne inna rabbakum la hayyun karim yàlla ku bari kersa la xadis bii nag moom lañ bëgg traité jël ci tuuti ndax kersa bu dee mu nga ca kër te ka jiite kër ga mooy wayjur bi bu boobaa kër ga mën na baax waaye su fekkee ne kersa nekkul ci moom kër ga yëpp man na yàq ko jël ko nag ainsi de suite topp ko nag moo tax ca njëkk ñu njëkk di koy tudd ci société bi ndax ñii mooy tudd si bés bu ñu ñàkkee kersa rek la leen wor dafay yàq waaye bés bu ñu amee kersa la leen di wor mën nga caa am yaakaar ci baax moo tax ñi muy tudd si ñi existe ci ñoom ne dañ war a am kersa كنجكك الوالد ولإذا كان الوالد يتمتع بخلق الحياة فإنه يستحي من ولده أن يأتي بطريق غير شرعي ويبيج ثم عليه أن يربيه حتى لا يكون ولده مجلبة للعار في المجتمع وأن يستحي أن يعرف عنه ولده تصرفات غير لائقه nee na way jur en tant que yaa nekk bàyyi ji kilifa bi ci kër gi da nga war a am kersa ki nga war a njëkk a mooy sa doom ci imam Cissé yal nañ ko yàlla feyal ci kàddu mi rafet yi mu doon jàngale nee na buñ la waxee ne bàyyi mu ne mooy bàyyi na yaa nga doon def doom nawle la la olof di fara di mooy danga war a rus sa doom mu ne boo rusee sa doom nag awalan li nga koy njëkk jox mooy boo ko tiimoo ne yaa ngi koy tudd na doon ne yaa ngi ko jur ci yoon ba ci jamono am na ñoo xamante ne dañuy jaar ci yoon bu dul yoonu sëy yal na yàlla musal jaam musal njaboot ba doom juddu ca ñu ñàkk ker sa woote mbumbaay ne dañuy ngente te yaay ja ñàkk kersa génn di nuyoo di jël ay photo kersa amu fa doom ji mu jur waroon na ko rus bu ko ne ko noo ma juree mu ne ko ay seede ñoo ko fekke dama laa jur ci yoon bu sell awalan loolu nga war a jëkk rusee sa doom rus sa doom ba yar ko ndax bu ëllëgee ku ko xool mu mën a importer sa sant sa doom jooju yaa ko war a yar ci yar ko ci ngay amee kersa ci moom ndax bu melee na mu xamante ne warul mel noonu le kan la ñuy saaga yow mii nga xawee ko ci dëkk kon kersa bokk na ci bàyyi nga futteeku takk sa ndëgg sa doom nga yar ko ko ñeme kuy togg dangay ñeme tàngoor kuy yar sa doom da ngay am fit ngay ñeme sa doom yar defar ko koo gis muy bay wala muy defar toolam garabam daf koy jege ñeme ko nag jonjante moom mu mën a mel yow na nga soxla kon en tant que baay ñemeel sa njaboot bu leen ragal yar leen mooy kersa bu ëllëgee duñu wax ne sama baay mooma yaru duñ ko wax nga fexe itam ba rus sa doom muy gis ci yow ci naka su noonu ba ca jiitu ci biir kër gi yaayam nooy jëflanteeg moom est-ce que màndu na bu dee da am ñaari soxna ñetti soxna ñeenti soxna rusal say doom li ngay jëflanteeg say jabar parce que ay nit lañu ñu ngi xam bu ñu gisee ne màndu bu boobaa nag ñu jox la cër bi waaye bu fekkee ne nag mànduwuloo bu boobaa nag yabeel ñëw moo tax en tant que baay pour say doom respecté la nga rus leen rusante dugg seen diggante yaayam yi sa jabar bu njëkk bu ñaar bu ñett bu ñeent nañu gis ne yow màndu nga ci ñoom bul kenn gis ci ñoom ne am na koo ci jël favor teg ko ci kaw ñeneen ña foofu la kersa bi ne rusal sa doom ci foofu sa yeneen doom yi rus leen ci yow ci sa bopp ngay jëflante keneen jël jox ko favoor di gënlante say doom gis nga bés boo gënlante say doom gënlante say soxna rek yaa ngi toj sa kër gi te yëgoo moo tax rusal say doom awalan dañuy njëkk a gis ci yow na doon màndute ci biir kër gi lu nekk rek nga teg ko ci màndu loolu mooy rusa doom bés boo ko defee rek bes boo ko defulee fa ida lam tafaal bés boo ko defulee kon dugg ci kàddu yonente bi fu muy waxee ne ida lam tastaxyi boo demee ba dara rusatu la rusoo say doom fas na machita lu la neex mën nga def ci seen kanam boo demee ba rusuloo say doom faalewuloo la ngay def ndax dëgg nañ ko di toj say dégg di dégg say toj toj ci dëkk bi say doom war nga rus say doom kon fexeel ba dugg ci xadis moom mooy rusal say doom ñaareel ba alwalat en tant que doom ñu jur la bu dee kersa mu ngi ci yow ki nga war a njëkk rus mooy sa baay fin bi nga xamante ne mooy deret bi nga yenu ci moom est-ce yow mel nga comme sa baay ci njàmbaarte ga ci baax ba ci njub ga ci yaru ga ci yiw ga du par hasard ñu jël li mu gën a fonk ci moom sa baay li mu gën a fonk ci moom ba bëggul kenn changé ko mooy santal mu yëkkati jox la turam man nga ko changé amul ben problème waye santam nak ken bugul ko santam kon santam la gëna a fonk ci turam la mu gëna fonku fonk ci turam nak mu jël ko jox la ko yoon kon war nga ko mérite sa baye ji ni jur la bax rus ko ñu dégg la ci luddul mom ci la mu ne sa baye nga ci mbax nek ci njub nek ci l'islam yow nga nek ci leneen na la rus kersa bobu na la dug en tant que doom na la rus sa baay di jooy wala sa yaay di jooy guddi parce que naqar boo leen teg na la rus yenn yi boo demee ba bëgg koo def xalaatal sa baay xalaat sa yaay waa buñ ko diggee waa buñ ko yégee na leen rus yenn nii bu ci dugg parce que rus sa baay parce que rus sa yaay fexeel ba lépp loo xamante ne dana dana yëkkati seen bopp ci kaw sagal leen nga góorgóorlu ca da ngay góor góorgóorlu ba sa baay ndamoo la sa yaay ndamoo la nga doon sax ci ñoom na la rus yow ci sa bopp ñu di lay saagawee sa baay wala ñu di lay saagawee sa yaay xam nga bu ñu waxee doom bu bon ku ñu saaga sa baay lañu ñu saaga parce sa baay la ñu wax ne moo bon mu jur la yow kon doom bu bon kon fexeel ba buñ la saga sa Saga buñ la saga sa yaay en tant que dom rusal sa ñaari way rusal sa bay di ak mom di ak mom xalaat di ak mom kaddu sa Sabai jox la ay directive nga wëlbatiku dem defi neneen lu bokul ak sa bay lim la wax na la rus sa bay la la wax mu ngi dem mu ne tol bi bala suba na set mu ñëw fekk suba setul na la rus mu ne la sa bind bi na mokk fii ba suba mu ñëw suba manoo ko mokkal na la rus def ci loo man ak loo mandu sa bàyyi nan ko rus sa yaay nan ko rus bés bu la joxee ndigal fexeel ba lam la jox ci ndigal bu ñëwee gis ne nam la ko waxee noonu nga ko defee loolu mooy respecté sa baay loolu mooy respecté sa yaay loolu mooy rus sa baay loolu mooy rus sa yaay waye sa bàyyi wax la nga jël kàddoom ba sanni ci sa gannaaw man na tok fukki fan lam la digal sa yoon ko ci kon fexel be rus sa baay ci ay kàddu lepp lo xamantene wax na la ko nga fexé be ko lepp lo xamantene la mu la demal gor gor lu be dem defiko rusal sa tengah te nga rus sa yaay bes boko defulé fa ida lam yafaal faqad daxala fi qawli shaari ida lam tastaxyi fasna ma shit sa bàyyi lum la wax nga teggi sànni fee na la wóor ne dugg nga ci yàlla wax ci bi wax boo demee bi dara rusatu la lu la neex def ku dem yab baayam ku dem ba yab baayam mën na yab ku ku dem ba yab yaayam mën na yàpp ne kon fexeel ba bul yàpp sa baay bul yàpp sa yaay noo koy defee mooy fexeel ba du leen di def loo xamante ne dina leen gàcceel wala mu metti leen ñetteel azawj borom kër en tant góor nga nekk ci biir kër gi ñi fi nekk ñépp ci sa waaw la ñuy wéyee fexeel ba yow ci sa bopp sa digganteeg sa soxna si bu la xoolee rek gis ne ku mat góor nga na nga niroog baayam na nga niroog baayam ci mat ga ci bugg ba ci yërmande ga ci fonkeel ga mat ko baay sa jabar danga ko war a mat baay waxuma ci at ya de waa ci geste bu tiitoon fan lay dem ci baayam bu jaaxlee fan lay dem ci baayam bu soxlaa ku ko gindi fan lay dem ci baayam fexeel be fees palaas boobule la nga waxanteeg moom nga matoog ba mat sëkk sa digganteek sa jabar bu mu gis ci yow ngay fecc kollere jëflanteek moom nga manqué ci kanamam mu xeeb la bu ko def bul nangu sa jabar xeeb la ci kanama ngir sa jëf bu ñaaw ak sa wax bu ñaaw war koo protéger tey ji yaa koy sànk bu ko def fexeel ba sa jabar nga rus ko fexe ba bu mu la yàpp ci noo koy defee mooy fexeel ba di koy protéger lépp lu ko war a laal fexeel nga di koy jàppale fexeel nga di koy teg ci yoon di koy orienter ndax loolu mu ci sa loxo léegi yaa na bi kulli azwajik wa banatik wa nisaa'il mu'minin kon yaa yaa war a yar sa jabar waxtu julli bu jotee yaa ko ko war a digal moo tax mu ne wa amriha bil ma'ruf wa nahyi anil munkar boo rusee sa jabar waxtu julli bu jotee farata bu jotee ne ko jogal nga def ko damay togg damay da nga ne bàyyi loolu dem julli ba pare parce que loolu la yàlla wax a juma jot na nga ne ko demal juma kom amoon ngant loolu la yàlla wax lépp loo xamante ne farata la sa diggante ak moom fexeel nga di ko koy orienté waaye itam lépp loo gis ci moom muy ayib suturaal ko bul gis ayiba mukk bi weer ko nga gis ko toog sama jabar nii la mel sama jabar nii la mel eh man la ma yore ci kër ga lu ñaaw lu nekk mu yekk jabaram doo góor ngóora nekku fa xam nga fan mooy ngóora sa jabar nga di koy tàgg gis nga même bu ngeen teqale koo sax na nga fexe ba ngóora boobu noonu na nga ko sàmm def na lu dul jeex tey jii ne bés boo waxee li mu def adduna yi bàyyi ko nga suturaal ko teg ci tànk mu xamne ki gor la parce que bu doon bàyyam mu sutural ko kon sa soxna sutural ko bul wax ci mom lu ñaaw de koy waye tam ko ci sa bir xol fonku ko lo am man ko sekk ak mom nga jox ko na ño xamantene manu mënuñul dara seen soxna yi da ci passé wu um lay fonku daf lay yàpp sa jabar fexel be maté ko lepp lu mu soxla te nga man ko nak teg ko ci loxoom lu dul yàq te ay doomam nang leen bëgg ay doomam nang leen taxaw nang leen yar gis nga bés boo defee li sa digganteeg sa soxna bu boobaa kersa ba mat na waaye boo ko defulee fas na amachita lu la neex defal yii boo ko faalewu lu la neex defal ci sa biir sëy lu la neex nga def sa jabar lu la neex nga wax sa jabar parce que amoo rusukaay yonte baa ko wax ida lam tastay fas na amachita azawja en tant que soxna ku jigéen te kersa fi mu gën a taaroo gën a rafet ci jigéen la moo tax yàlla melokaanal doomu Shuaybu ba walbate ku doon soxnay Muusa mu ne tamshi ala istihyaai jigéen dafa war a am kers jigéen dafa war a am lu koy lu muy jombale boppam dafa war a am jom motax yàlla tudde ko ne ko am jom la doxinam sa da ngay xamné jigen bi jigen bu am jom la yàlla taggé ko loolu jom bobu fama ma daxaa bil haya omar ibn abdul aziz dang ko ma sa wax ne ko bés bu démé ba jigen amatul kersa man nañ wax ne gëna walu dinam yépp tànku na omar ibn abdul aziz moy khamisul khulafa ar-rashid mo ne dé bés bu jigen amatulé kersa nee na diina amatu fa fee fu ñu jëm ci jamono bi jigéen ñi ñoo gën a ñàkk kersa lu ne ngay dugal surtout ci internet bi ci jamono bi jigéen ak li ci yàlla wax na fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal yàlla nee na na ngeen ormal seen cër yi bu leen di feeñ nga gis jigéen boo xamante ne la mu sol baaxul la mu diwoo baaxul na mu mel baaxul mu foto ko estati ko publier ci Facebook ku am jom jigéen bu am kersa du ko def yàllaa wax nag yàllaa la sallallahu alayhi wa sallam jigéen bu amee kersa dafay fexe bay nëbbu ciram di nëbbu baatam baatam sax yàlla nee na booy julli yow en tant que jigéen wàccel sa baat bu yëkkati sa baat bu dee góor yëkkatil sa baat waaye yow bu dee jigéen nga yàlla nee na wàcceel sa baat bu yàlla demee ba tollaku ci farata bu ne wàcceel sa baat kon noo war a def bu demee ba faatu laa wax de ñu di koy dem suuli nañ jël morso sax tiimale ko ko bul kenn gis sax jëmm bu dem ba faatu tey ji nag ngay dund dara baaxul ci sa jëmm nga jël photo publier jigéen bu baax du ko def jigéen boobu nag bu demee ba dugg ci gu sëy bu dee kersa mu nga fa jom a nga fa war na fexe ba góorgóorlu jëkkëram mu satisfaire ko bu mu soxla leneen na ma tee jëkkëram yére yi na set kër gi na set lekkam na set lépp lu takk ci moom rek na set buggu ko buggu ay doomam même doom yi nga xamante ne moom ndaw si juruleen te bàyyi jëkkër jee ko jur na mel ni moom moo leen jur ndax olof dafa ne kenn du bañ ganaar di bañ di bugg ay nenam manul ne ñaari ngay bañandoo boo buggee jëkkër da ngay bugg ay doomam bés boo gisee jigéen buy wujj di toroxal yeneen doom yi nga xamante ne yeneen jabar yi ñoo ko jur te paabee leen jur xamal ne buggul jëkkër ji bugg ko dafa am intérêt bu ko fi teg waaye bés bu buggee jëkkër ji dafay bugg ay doomam waaye bu bañee ay doom yi rek xamal ne intérêt moo ko fi teg te bés bu paa bi làkkoo mu xam dina toroxal njabootam ci gannaaw moo tax jigéen pour mu bokk ci jigéen yu baax yi am kersa am jom na bu ko jëkkër ji bëgg ay doomam te lépp lu mu gis ci moom muy ayib na suul da gis koo xamante ne ubbi na poos ya ubbi armoire ba am la mu gis wala am la mu découvrir wala am photo buñ ko yónnee rek mu xatara génn dem ci biti immaa ci baayam immaa ci yaayam immaa ci xaritam vie privée ci boppam mu di koy vilipande ci dëkk bi dundam yépp mu di koy génne ci biti sama jëkkër lii la def sama jëkkër lii la def betti naa ko ak gis naa ko ak boo ko fekkoon ci kaw jigéen sa suturaal ko mu xam ne yow nit nga mu gën ormal rusul la suturaalal sa jëkkër suturaalal awraam parce que bu fekkoon ne lu mu mënoon la doo gis ci moom ayib kenn bëggul ku gis ci moom ayib te diggante néegu sëy dafa xat kon yow jabar yow jëkkër li nga ci mën a gis dafa bari loo ci gis noppil sutural boo gisee yent bi dafa man satara musliman satarahullah fan la koy gisal ayib ki nga dëkkal kan moo ci jiitu nag ki nga xamante ne mooy sa couple bi te bul di am njort bu ñaaw ci moom te itam fexel ba lépp loo xamante ne soxla na ko ci jigéen nga di ko koy jox matalal ko ko jox ko ko ba mat sëkk la ko dalee ca lal ba ba ci leneen fexeel ba matee ko jabar waaye en tant que jigéen sa am na jigéen ñoo am sa jabar jëkkëram daf koy soxla ci lal bi sax muy bañ di créer ay feebar di créer lu ne jëkkëram bu dee ne faible la dem wuti ko feneen ku ko ko yobbe jabar ji boobu mooy jabar bu bon bu feebulul mën na faa jëlee feebar parce que lii bu génnul ci yaramam feebar mën na koo topp bu loolu amul itam yaramam itam mën na sonn kon en tant que jigéen fexeel ba am kersa ci sa biir néegu sëy sa digganteek sa borom kër fexeel ba bu mu la yàpp ndax bes bo defulee lila war en tant que jabar mu xeeb la yalla waye boko defé nak bu boba nak mu yëkkati la naw la parce que ni nga xamantene non la wara doné sa baay yo non nga wara doné ci ko ak fonko ko ak man ko topato na mel lo jural sa bop ndax say da nga bëgg ñu mel comme mom gis nga nit ki buy jëkër da fay tan dom ni mbugu domam mel jëkër du mel nonu lay faral di wut comme yow di nga bëgg sa doom doon ku sotti ku mat sëkk kon fexeel ba jàppale sa borom kër ba mu doon ku mat sëkk nag sa doom ñooyee nag mën a mel ni moom en tant que jigéen bés boo ko defulee yaa ngi ci xadis bi idaa lam tastax yi fas na machiit boo demee ba dara rusatu la en tant que jigéen ci sa biir néegu sëy lu la neex mën ngaa def moom nga gis jigéen boo xamante ne lu ko neex def ci biir kër gi dara rusul dara dara rusu ko lu ko neex def ci biir kër gi parce que li ko waral moy jabar la way amul kers yalla na mu musal ci façon boobu allahumma aati nufuusana taqwaha fa zakiya wa anta khairu man zakka allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid allahumma inna nastaghfiruka istighfar al anbiya wal mursalin wa natubu ilayka tawbatan malaikatil muqarrabin wa hab lana inabata wa abata salihin برحمتك يا ارحم الراحمين وقل ربي يغفر وارحم وانت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه juróomeel ci ñi nga xamante ne ci société bi war nañu am kersa uñ ko ñàkkee yàq lu bari almuallim mooy sëriñ bi rek professeur bi jàngalekat bi ndax li gën a cher ci ressource réew wala ci kër mooy xale yi sa doom yi ci kër gi ñoom ñooy li nga gën a fonk am nga saaku ceeb am nga fi fas am nga fi oto am nga fi ay yére waaye am nga fi doom koo gën a fonk sa doom nga teg ci kaw loolu yépp kon li nga gën a fonk ci kër gi mooy say doom kan ngay yëkkati loolu nga bëgg nag gën koo bëgg teg ko ci loxoom ne defaral ma mooy sëriñ bi mooy professeur bi moo xam ñuy jàngale angale walla ñuy jàngale français ñoo ci yem sëriñ boobu dafa war a am kersa dafa war a am kersa na rus ay élève di koy gis ci ay yoo xamante ne ay bitis la ñu di koy gis ci yu suufe walla ñu di koy dégg ci yu suufe professeur warul nangu lool ndax moom dafa doon ko xam royukaay la moom lañu wax ne ay eh, yéen suñuy doom roy leen ci kii kon kooku nu war a mel kooku dafa war a jub tegu ci yoon ndax la la lañ la royloo bu royee ci yow nga bàyyi yoon moom dafay bàyyi yoon moo tax en tant que sëriñ na la nga di koy def wala sa taalibe yi di lay gis nga di koy def fexeel ba lépp loo xamante ne mu ngi présenté jikko yu kawe nga di koy incarné lépp loo xamante ne mbaax la ci njub la na koy incarné ndax xale yépp ci yow la ñuy xool mag ñi sax ci yow la ñuy xool doy loola kon fexel ba bul juum fexel ba bul bàyyi yoon bi bés boo ko defulee kon dugg nga ci xadis ba ida lam tastahi fas na maa chiit moom nga gis riñ boo xam lu ko neex def fu ko neex taxaw lu ko neex wax num ko neexee en tant que talibé wala élève bi jàng di nga war a am kersa kii sonn ci yow subaak ngoon guddeeg bëccëg di jóg fajar di def ci yow jikko yu baax di jóg ngoon di def jikko ci def ci yow jikko yu baax di ci xëy di ci gont noor nawet tax mu bàyyi soxlaam yépp bu feebaree sax mu ngay forcé sëriñ boobu awala na ko rus sa professeur boobu na ko rus awala noo koy rusee mooy lépp loo xamante ne rek def na ko ci yow ci ay jikko fexeel ba di nga nga di koy présenté ni ko góor gu baax gi doon waxee cheikh al islam nga ji ci tool bi dugub ñëw fekk saxul naka lay def ci yow nga jihaat saxul nu muy def ci yow fexeel ba sëriñ bi li muy def ci yow nay gis ay résultat ci sa comportement moo xam sëriñ bi teew na moo xam sëriñ bi teewu tegul ci njàngaleem fu mu fi la teg xel ba yow ci sa bopp itam nga rus mu jox la directive nga wuuteeg moom ci waxin sa sëriñ digal la sa professeur digal la demal defi lii nga bañ dem defi leneen ci daara yi ba léegi orma ba mu ngi xaw a des même su fekkee ne mu ngi wàññeeku waaye boo demee léegi ci école yi sax dañuy dóor professeur yi professeur yi dañ leen di dóor di nangu micro yi ci seen lox di leen di saag di leen di menacer léegoo-léeg sañu rey leen li xew ci université laa wax ak école boo demee ci daara nag sëriñ bi dafay wax ba pare waa nga ne dafa bari wax rek dafay coow rek dem seeti li la neex nga dem defi ko te xay aata laa yajtamiu diddaani wala lahum fi axdi laa yadaani ñaar mënuñ dajaloo bugg a baax ba pare te lu la sëriñ bi wax nga ne duma ko def wuuteeg sëriñ bi lu mu wax nga ne du noonu doo jàll kon na la rus am kersa di wuute ak sa sëriñ sa sëriñ wax la lii ba ñëpp xam ne lii la sëriñ bi wax nga dem defi leneen bes boo tuddee ne kuy sa sëriñ ñu ne la diw sàngam fexeel bi bu ñu saaga sëriñ bopp diw sàngam de taalibe sëriñ ba la waaye moo fi def lu bon nii déedéet ku baax ki kan la ñu ne diw sàngam mooy sëriñam ndam bu rëy la ci sëriñ bi fexeel ba sëriñ bi di lay ndamoo kersa boobu am ko sa digganteek sëriñ bi mooy fexeel sëriñ bi bu mu la dégg bu mu la gis ci naka su dul ci lépp loo xamante ne yaa nga ca rek na doon rek na bokk ci njàngaleem ak la nga xamante ne mooy ni mu lay jubale juróom-ñaareel al imam ki nga xamante ne mooy imaamu jumaa ja subhanallah il faut mu rusu yàlla na rusu yàlla di wax lum dul jëfe narusu yàlla di jël ayami ak hadith yonente bi di koy yuharrifun al kalima an mawadi yaangi andak politiciens bi nga jël ay yàlla yi changé yaangi andak yaangi bëgg lu neex diw sàngam ngay jël ay yàlla yi di koy changer di yuharrifun al kalima an mawadi en tant que imam rufal yàlla borom bi nga xamantene mom nga présenter ci bir dëkk bi rus ko be pulau lo def rek ñu ne ah kañ imam ko def man nañ ci roy imam ko wax man nañ ko def nonu nga wara mel ci bir société bi bes bu lolu amulé nak yalla imam bobu lu ko neex def mom nga gis def ci jamono imam bu tok julli jot ci sibaar mu bañu di dem julli takusan, takusaan mu bañu di dem julli yemu ca dem betimis mu jël micro di wax nan ne yow diw sàngam yaa tax ba ñun imaam yi julliw ñu tisibaar julli ñu takkusaan foo ruusee yàlla ñu dénk la jumaa ji waxtu bi nga war a dajale nit ñi tisibaar war leen dajale takkusaan nga dem ci nitu àdduna toog ko ba waxtu bi faat la koo yab yàlla bi nga xam ne moom nga présenté ci kaw suuf imaam da nga war a rus yàlla yàlla bi nga xam wala délégué ci kanamu te bu yowmal qiyaamati jotee yàlla dina la laaj nit ñi waaye dina laaj nit ñi yow noo dundeek ñoom boo paree nag mu wëlbate ko ci nit ñi kii nu mu dundeek yow nu mu dundeek yéen kon fexeel bi di defar sa bu ñëwee defaral ñaari bokk buñ ñëwee defaral ñaari xarit bu ñëwee defaral waaye ngay seet say intérêt rek dem farakkee erreur gënu koo rëy kon fexeel bi en tant que imam nga ra la rusu yàlla ci biir njabootam ndax alxalko ya la juróom-ñetteel ba almalik awi rais moo xam buur la moo xam président il faut nga am kersa kersa ba nag mooy sa peuple li nga waxanteeg ñoom yéena moom alal ji jox leen ma ma téel leen dinaa ko seddale parce que président bi du dara lu dul ne ñun peuple bi ñun ñoo moom suñu réew moom suñu alal moom suñuy opital moom lépp moom suñuy école ñu jël bic bi dénk ko yow en tant que président ne xoolal ci ñun ñu gën a compétence ci wàllu médecine nga jox leen ñu doxal xoolal ñi gën a compétence ci wàllu économie nga jox leen ñu doxal xoolal ñi gën a compétence ci wàllu jàngale nga jox leen ñu doxal boo demee côté bu nekk rek ñu ne la seetal la fa gën a baax ka gën a yelloo nga tegal ñu ko fa ñu jox la nag ne teel ñu njàng bi xoolal ni muy doxee ni mu gën a ba doom yëpp jàng nga dem seeti ku neex koo xamante ne mérité wu ko léego-léeg noonu mu doon sa mbokk ci deret nga fal ko fa que yaa kon en tant que président bi da nga war a rus sa peuple ku ci xiif fexeel mu lekk Seydina Omar loolu la waxoon ne def ma rus may tëdd ci kaw lal mu am ku nekk ci biir xeetu yonente bi te lekkul bésu keroog ba mu génne Madina ànd ak Abbas ki ndaw sa di mu ne loo fi def mu ne ko doomi xale yi mënoo leen yar mu ne amuñu lu ñu lekk Abbas ne na keroog nelawuñu maag moom moom mooy upp moo togg ba mu ñor ñu ne ko kaay dem na mu ne ko man ñeme naa nelaw kenn ci xeetu yonente bi lekkul ba suur loolu mooy responsabilité en tant que buur fexeel ba bul nelaw fekk peuple bi yëpp lekkuñu ba suur ku xiif na lekk ku feebar na faju yow la jox hôpital yi jox la suñu alal kon defaral te mu ngi fi parce que ñun ñooy cotiser di la koy jox TVA yi ak taxes yi yépp boo ko boolee mën na yóbbu réew mi li ci xew dal mom moy jaxase ko ndax yàlla alam na jali arda ki li fi nek Sénégal doyna wa Sénégal lolou la yàlla wax alam na jali arda kifatan am watan wa ahya bu ngeen de xëj ngeen ci bir suuf bu ngeen di dundu itam xëj ngeen ci kaw suuf ma len natal te itam fexel be ubbi école yi nit ñi jàng ubbil daara yi nit ñi jàng nga yombalal len xam-xam waye gis nga président bu saasaay wala bu yées da fay fexé am duñu xam tous parce que daf leen paré nax ndax ko xam neexu la nax manuñ ko manipuler ki ñi manipuler kay moy ko xam fexel en tant que président na la rus ngay jël décision di atté jubul waan yaxkuma baynahum bil adl na nga atté seen digënté ci mandute waye di atté ni man la neexee ya ma neex ñu di koy wax ci gàttal rek kuma am de akuma amul de nii nii nga leen di traité nii nga di leen di traité nii yaa ngi ci erreur ñëpp ci sa njaboot lañ bokk kon da nga leen war a yemale ci yoon yahkuma baynahum bil adl wa yar'a amwaalahum na la rus ngay lekk seen alal lii ngay lekk lii ngay sol fii ngay dugg lii nga am est-ce que amoon nga ko avant na la rus ñu dénk la nga aarisu seen kaw am lu dul jeexati ci seen kaw ci seen doddu nga ko jële amon li amon li da nga doon luwe ñu jox la rek nga far nak gis nga té ay milliards foko jëlé na la rus lolu na la rus sa digënté ak bi bo démé nak bé lolu amul kersa bobu amul ci yow nga jël sen alal di foyé jël sen santé seen wérgu yaram di koy foyé jël sen di leen di sacrifier doomu nit ñi nga di leen di sacrifier di dugal ci kaso bi ñii ngay rey tey jii boo demee ci réew yi nga xam ne développé nañ kenn nit bu dee ci ñoom subhanallah Amérique tey jii nii benn nitu américain bu faatoo ci àll danañ enquête bi xam lan la yëkkati ko même fekkee ne yàqu kese lañuy indi sax dañ ko indi bi ci seen réew teral ko daldi koy suuf même su fekkee ne dañuy fay ay millions France naka noonu ndaw soosu noonu ñu jàppoon Sofia. jàppoon ko otage ay million la ci fay pour ñu man koo baay ba mu ñëwee sax moom mu ngi koy nuyu sax mu ne ko man du ma la parce que man la waaye mu respecte ko parce que français la ndaw si tuub na am na ay principe tey jii nuyuwu ko en tant que président waaye toroxalu ko de daf ko respectel moom la mu gëm waaye ñun ñii suñu doom yi ñooy dee ci àll bi di dee ci géej bi di dee fu ne suñu yoon nekku ci président yi sa nekku ci duñ ko faale sax fu ñu jëm ñun ñu président nañu dellu si waat rus yàlla rus ñu tuuti bokk waaw te itam nañu am fit am jàmbaar def la nga xamante ne moom la war a def Lat Joor keroog ba mu demee ba ses fasam bi kenn mënu koo dab bu xasee départ ñu ne ko dawal mu ne ruus na ma ñuy nettali ne daw na rey nañ ko keroog de waaye turam du léegi mu ngi fi nga gis koo xamante nag kilifa la buur la wala président la moo fi gën a ragal da ngay ñeme affrontation ñeme dëkku soxlay peuple bi loolu mooy nga rus peuple bi boo ko defulee rek kon bu boobaa lu la neex nga def en tant que président lu la neex nga def dañuy dem bi xam ne lii du jub nga def lii moomuloo ko nga am arrogant arrogant ci suñu kaw booy wax ak ñun sax dañ lay soxla sa doo ubbi bunt yi te pourtant ñu ñoo ko moom. waye comme amu lolou lay rus nak moo ngay jëfënte ak nit ñi bës bo amon lu lay rus yéen ñi do ko jurom ñent al mudir en tant que directeur il faut nga rouss yalla il faut nga rouss yalla ñi nga xamé ñom ñoy say employé nak leen yërem te itam nak leen yéene na nga yéne sa employé li nga buggal sa bop ci yiwu ak sutura ak teranga yéne ko say employé waaye da ngay gis koo xamante ne emploi bés bu demee bu bëgg a tekki rek mu xeex ko gor ay tànkam fexeel bay sàmmwante lépp loo xamante ne rek seen soxla la waaye fexeel itam seen xol ak seen yëg-yëg bu ko di briser maanaam bu ko di toj wax ko baat boo xamante ne rek dafay xam ne li nga doon directeur moo tax nga wax ko léegoo mu doon ci biir société bi koo xamante ne yaa ko chef de waaye mat na la baay yaa ko chef de waaye mat na la yaay yaa ko chef waaye soxla ba mu ci gannaaw muy tax muy dang-dang ci sa gannaaw fii bu ko amoon du ñëw soxlaam bu mënoon a faju te du ñëw fii dana dem faji soxlaam te doo ko fi gis kon ñooñu nga xamante ne ñoo topp ci sa gannaaw doon say employé fexeel booy wax ak ñoom ak booy jëflanteeg ñoom bul jaxase seen xel maanaam bul toj seen xol wax ko baat boo xamante ne dina ko metti te mënul ci dara bul di jëflanteeg ñoom ci arrogant lii mooy kersa sa digganteeg ñoom ñu respecté la est-ce que directeur parce que matee nga xam na ne yërëm nga ko xam nga ne fonk nga ko xam nga ne respecté nga ko waaye bés boo demee ba amuloo kersa nag lu la neex ci société bi nga ne maa fi chef lu la neex nga def saaga ki door ki folli ke xañ ke dàq ke doo seet dara dem na sa ba ci réewu tubaab bi ñu ne bes boo demee bay dàq sa sa emploi sax danga koy fay moo tax bés buñ la xasee ba jël ci seen société pour ñu dàq la du yombati parce que bés buñ la dàqee rek dañ lay dédommagé ba war la fee alal ju bari parce que li ko waral mooy ne dafa am ak ak yelleef ci biir société bi même su fekkee ne yaay directeur fukkeel ba en tant que employé na la rus sa directeur ngeen waxante heure bii ba heure bii ngay tàgg nang ma liggéeyal huit heures ba ma fay la temps bu heure bi jeexee trois cent mille francs masala nga toog ba midi wala nga toog ba dix heures door a yegsi est-ce la ngay lekk yaa ko moom moom la waxante gi yow yow nga dugg si ban heure dix yaa ngi lekk alal joo moomul la de huit nga waxanteeg moom nga toog ci li la neex ba dix heures door a dugg si yaa ngi ci heure yaa ngi tooj yaa ngi lekk loo moomul mu ne la nag ma liggéeyal altine ba ajjuma nga xëy dem ñëwloo altine ñëwloo talaata ñëwloo àllarba léegoo-léeg nga dem këré ji ay feebar ba léegoo-léeg nga gis ko indi sax gis nga certificat médical yëpp ci tàppale boo amoon kersa am jom doo ko def en tant que employé na la rus ngay jox sa njaboot di leen di dépensal jox leen seen ndékki ak seen añ te lewul di fay say facture te la ngay fekk ci ay facture lewul parce que liñ lay fay yow yaa ngi jël ci société bi mooy temps biñ la joxoon defuloo ko naka noonu na la rus ñu ne la ndax man ngaa def lii nga ne waaw mën naa ko te fekk manoo ko bi maanaa li tax ñu jël la pour nga liggéey ci société bi dañ laa jël pour nga def lii masalan jàngalekat dañ laa wax ne na nga man jàngale yow ndikite manoo jàngale amoo ci est benn diplôme amuloo ko ci bu boobaa nag yaa ngi yaa ngi wor te man xashanaa fa laysa minna yonte bi ne boo nu woree rek bokkatoo ci ñu ñu tëjee ko bu la neex bu fekkee ne kersa am bu kersa amul ci yow nag lu la neex ci société bi nga def ci biir société bi lu la neex nga def di tàppale di naxe di wuruj lu nekk rek nga seet sa muusaange rek noo ci génne parce que amuloo kersa rusoo dara bu wéer jeexee nga ñëw ñu yëkkati fay la te wóor na la ne lii ñu la fay diggeewuloo ko fañ koy jeexalee fukk ak ña benneel ba taajir commerçant fexeel ba am kersa en tant que commerçant bul wor bul wor te bul naxé ndax ñi ay jaamu yalla lañ na nga na nga rus yàlla ci jaamam yi na nga rusu yalla ci jaamam yi fexel be lepp lo xamantene ak la yitam na la rus ngay tey ak ya ak jàmbur yi am na ñoo ñu ngi je ay millions ay milliards ak jàmbur la dajale yalla ci yalla musa kon fexel en tant que commerçant na nga rus yàlla rus ko ci jaamam yi parce que nit ñi il faut dañu soxla lii nga xamante ne moom ngay jaay ak lu manti doon lépp lu ñuy jënd jënd rek dañ koo soxla alimentation ak lépp luy xew ci jamono rek ñu di koy jaay rek soxla la kon ki ñëw soxla laa am kon fexeel ba lan koo wax ne moom laa lay jaay nan doon moom la mu soxla waaye dangay gis koo xamante ne dafay nax dafay wàññi kilo ya waylun lil mutaffifina yàlla tekku leen gis nga commerçant yi nga xamante ne ñoom ñooy naxe bu yowmal qiyaamati jotee yàlla ci boppam moo leen di xisaabal boppam moo tax mu ne waylul mutaffifin alladina ida qaalu ala nnaas yastawun wa ida qaalu awadan yuxsirun ala yazunnu ulaika annahum mabaosun xamuñ ne danañ dëkk li yowmin azimin bés bu rëy yowma yaqumu nnaasu li rabbil alamina keroog ba yàlla di taxaw nag war leen a xoolal ñoo commerçant rek bés boo xamante ni ñoom la pour audit la am na ñoo xamante ne ci la ñuy ñàkkee seenu milliards kon en tant que commerçant na nga am kersa sa diggante ak nit ñi bés bu loolu amulee nag ku la neex nga nax ko dompat tigi dompat cakee dompat cakee jël cakee jël cakee boole di dundee rek ci kaw nit ñi buñ la waxee commerce nag bul foog ne la nekk ci marché ba rek la ñuy waxal déedéet lekk dañuy jaay courant ñii nga xam ne ñoom ñooy borom réseau yi Orange yeeg Tigo yi ak Expresso ak Gamcel ak kii sel yooyu yëpp ay société yuy jaay lan lay jaay crédit walbatiku di jëlaat crédit kon lépp lu ñuy jaay ci jamono nekkul la dem ca marché ba njaay yi gën a rëy tey jii ci jamono ci espace bi lay jaar mooy ci air kon lépp looy jaay fexeel nga màndu ci xool ci yàlla. gis nga commerçant yu ndaw yi ngay fekk ñu laal seen taabal ci marché bi ñooñu mën ñu jël lu bari de waaye xoolal koo xamante ne cinquante la ñu wax saako bi cinquante kilo la war a bu ci nekk mu def ko quarante neuf génnee ci benn kilo est que dañ ko neex a seet mu solo la ci ay tonnes est ce que mën nga ñëw di seetaat yi yooyu mooy saturé yi gaz bi dañ la wax ne gaz bi mu ngi nekk cinq kilo ñu defal la ko quatre kilo te doo dem ci kër ga di vérifier da ngay ñëw rek taal sàcc na la li ngay dem tey jii nii ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay ci mbooleem ci jamono yii xew nii mbuus yi chasse yi ñu ne la mbuus bii nii meew bii nii mu ngi def benn kilo boo dajee nga fekk lu tuuti ci biiram yooyu yépp ñoo koy def di koy sàcc ci kaw société bi ñoom la yàlla di wax waaye du borom taabal yi li ñu jël bariwul dëgg la nag ñu ngi jël waaye baaxul ndax yonent bi nee na benn dërëmu riba nit attanu ko moo gën a garaaw du ne benn dërëmu riba kon bul xeeb ya ca table la waaye ñi ñuy gën a waxal mooy ñi téye société yu mag yi di dundee ci kaw bopp société société bi di dund ci kaw nit ñi te ay milliards ay milliards te fan lañ ko deele dañ lay wax ne jaay nañ la cinquante kilo te fekk quarante neuf lañ la jaay kilo boobu na mu ngi jar téeméer téeméer yee téeméer yee ñuy sàcc ci la ñuy amee la ñuy amee dara daganu ci boo ruusee yàlla fexe bi bu ko def ci gàttal daal nit kii na fexe ba am kersa gis nga biir ki bu amee kersa dana regle kàddoom dana regle jëfam waaye bu demee ba nit ki dara rusatu ko amul kersa dara kersa nekkul ci moom lu ko neex mu wax même buy fet da gis ku taxaw ci internet bi ci télévision bi di fen woor na ko li mu wax ni ay fen la jabara ma ngi koy seetaan dooma mu ngi koy seetaan ay jarbaatam ñu ngi koy seetaan bu paree ne politique la fen yonent bi nee na yooyu ñetti yi nee na caaxaan amu ci fase sa jabar amul dama doon fo déedéet goreel sa jaam jaam amul dama doon fo amul dama doon fo fen fen la tudd te lu gën a fen ci bàkkaar kenn gis amul ci kaw suuf yonent bi nee na dafay yëngal arasu yàlla fen ala laanatullahi alal kaasibi ka sàcc yàlla nee na dagg loolu loxo bi waaye ngañu ma ko de ka def naka su dul naka su dul ci jigéen dóor leen ko waaye ngañu ma ko de waaye kii fen yàlla nee na jéppi naa ko génn naa ci moom maag moom sekkatuñu tus fenkat moo gën a garaaw ñëpp alkadibu yu jaanibul iman nga gis koo xamante ne rusu ko nag mu taxaw publiquement di wax li muy wax ay fen wala mu toog ci digg njabootam di wax ay jabaram ay doomam xam ne lii ay fel la ay magam ay rakkam xam ne lii ay fel la mu continuer di wax rek parce que amul lu ko rus bu amul lu ko rus du ko wax ku am kersa na fexe ba jëfam bu demee ba amatul kersa lu ko neex def bakkaar bu ne mën na koo def naan sàngara sàcc lu ne mën na koo def ku am kersa dafay xam nu muy soloo bu demee ba kër sa amatu ci nit ki nu ko neexee mu soloo noonu moom ngay gis koo xamante ne la mu sol dara baaxu ci mu romb di ngeleñu yoonam nekku ci wow bot surtout ci jigéen dañ lay romb ak colin bu gën a yées lépp a nga dangal ci seen yaram bi te rusuñ ko génne moom génne moom ci mbedd jigéen war na koo rus ay loosam di génn jigéen war na koo rus baatam bi di génn waaye dangay gis jigéen boo xamante ne presque dënn ba yëpp nga ci biti tànk yi yëpp a ngi ci biti bu fa kersa amoon jom am fa jigéen boobu du man a solo noonu kon bu jigéen demee bi amatul kersa amatul lu mu jomb jom nekkatul ci moom lu ko neex mën naa sol naka noonu itam bu fekkee ne kersa am na ci yow dangay ngay seet ngay dugg yaa ngi ca jumaa ja aha kañ rafet na yaa ngay dugg ca école ba ca daara ja ah kañ rafet na yaa ngay dugg ca tool ba rafet na yaa ngi dem ca marché ba rafet na yaa ngi dugg ci sa biir société di liggéey rafet na yaa ngi dugg ci sa atelier rafet na loolu mooy kersa waaye bu kersa amatule ci yow ñeme ngaa dugg fu ne ñeme ngaa dugg ci baar ñeme ngaa dugg ci boîte euh, boîte de nuit fu nekk mën nga faa dem parce que amatuloo lu lay rus bu dee am na lu des ci yow looy rus place yu ñaaw yooyu noonu daf lay rus nga defay fay dugg parce yow bëggoo da ngay gis ko xam ne dafa toog mu am kuy kii nga gis muy làqatu parce que bëggul kooku gis ko am koo xam ne dafay xaar ba guddi lan moo tax place yooyu noonu guddi gën a fees parce que lan moo tax foofu baaxul rafetul da ngay làqatu ba ñëpp kii nga door a dugg ci biir lan moo tax dañuy def lampe bu leer bu xonq la ñuy jël wala bu bulo pour bul kenn xamee kenn. parce que li ko waral mooy nekkul place bu jàkk bés boo demee ba am lu lay rus nag da ngay fexe nga seet place yi ngay dugg bu kër sa amatul ci yow jom amatul ci yow nag fu ne mën nga faa taxaw fu nekk mën nga faa dugg yàlla nañ yàlla musal moo tax alayhi salaatu wasalaam gàttal ko ci xadis ne istaxyu min allahi xaqal xayaa yéen ñépp rus leen yàlla te buleen leen ko rus ruslu nag da ngeen rus yàlla xaqal xayaa rus leen ko tigi nag saxaaba yi tontu ko ne ko aha kañ rus nañ yàlla de alayhi salaatu wasalaam ne aha kañ kurus yàlla kurus yàlla man istaxya min allaay xaqal xayaa fal yaxfadi rasa wa ma waa kurus yàlla na fexe xam liy dugg ci bopp bi li muy seetaan na ci rus yàlla lu muy déglu na ci rus yàlla parce que ñaari mooy dugal ci bopp bi liy dugg ci yur bu fii di dox fii lay jaar ci bët wala ci nopp kon boo wéetee li ngay xool rus ci yàlla boo wéetee ba jël say écouteur dugal ci nopp bi da ngay gis koo xam ne jël nañu écouteur ba teg mu mu yóbbu xiccaat écouteur parce que bëggul ñu xam li muy déglu bu doon lu baax du ko bay kon yonent bi ne boo rusee yàlla fexeel nga bàyyi xel li ngay xool surtout ci li xew plateforme yi ci jamono bàyyil xel itam li ngay déglu yooyu yëpp da ko war a bàyyi xel. nekkul ñëw rek dugg wal bat na oma wal bat na mis la oma hawa biir bi itam la fay dugg bàyyi ci xel la ngay lekk la ngay naan settantal ko duul lu ñëw rek dugg ci sa biir bi kurus yàlla la wax a de kurus yàlla duul alal joo jot loo jot rek lekk dangay ngay segg te lépp loo xamante ne nag segguñu ko nag erreur man na caa tey jii boo tànnul sa ceeb bi bon seggul sa mew bi lu nekk mën na caa mu ne wal yazkuril mawta wal bila kurusu yàlla del fàttaliku dee tey fàttaliku bàmmeel wa man araada al axira taraka zinata dunia ku bugg àllaaxira nee na du yittewoo adduna ak taaru adduna fa man faala kadalika ku mel nii faqad istahya mina kon ku bugg adduna rusul yàlla ku dul fàttaliku dee bés ngi ñëw ñu gas takk la suul bàyyi la fa ak sa jëf kooku rusul yàlla bés boo koy fàttaliku dangay bugg di rus yenn yi di koy def moo tax alayhi salaatu wasalaam ne boo buggee rus yàlla nii nga koy defee yal yàlla boole ci ñu ko rus allahumma ati nufusana taqwa fa zakkiha fa anta xayru man zakka allahumma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك يا مولانا تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت